Éducation sur Cine TV. Santé sur Cine TV. L'actualité sur Cine TV. Politique sur Cine TV. Sport sur Cine TV. Religion sur Cine TV. Culture sur Cine TV. C'est un écrit par Cine TV asalaamaaleykum man maa ngi tudd madame Diop Niakhane Ndiaye nekk coordinatrice SR district sanitaire de Fatick maanaam jiite sages famille au niveau du district de Fatick. Euh, tey moom dépistage bi xam nga mois d'octobre moom dafa nekk mois de la femme dañuy faral di def ay activités yoo xam ne day dem nekk activité de sensibilisation am ay activités yoo xam ne activité offre de service maanaam dépistage bi ñu def fii mais commencé nañ ko ci yeneen postes yi comme boo jëlee poste de santé de.

Euh, couramment pour ñu mën a xam ndax amuñ jàngoro ji ñu naan cancer si ween bi mbaa si bëtutu njurukaay bi parce que boo ñëwee au niveau du centre de Fatick dépistage bi dañ koy def si gratuitement en plus tamit amoon nañ appareil boo xam ne dañu def prise en charge bi tamit gratuitement ba tax prise en charge boobu dañ ko doon def au niveau de Fatick day tax doo dem ay Dakar ak yooyu di sonn parce que dañoo seetlu woon ne bu njëkk ba jigéen ñi dañuy def ay ay va et vient suñu leen dépisté ñu positif dañ leen yebal Dakar te xam yaa gën a xam Dakar euh, faj mi dafa metti surtout yow boo xamul Dakar dëkkoo Dakar va et vient bi dafay dex ba yow da ngay découragé des fois te boo découragé rek mun nga am ay complications te du loolu du lu gën moo tax fii nii ñun ak tamit même hôpital régional tamit boo fa demee tamit euh, dépistage bi c'est gratuit te ñoom fi mu toll nii mammographie bi réduire nañ ko ba 15000 francs parce que octobre moom moo ko laaj moo tax ñuy ñaan askan muy ñëw dépisté di ñaan tamit bonne volonté yi ndax euh, octobre rose yee passé dafa doon am ñoo xam ne ay nit ñoo xam ne dañ ñëw dëkk dëkk dañuy dëkk ci dëkk bi am koom ñu ñëw di jënd ay bon pour may ko ñoo xam ne néew di doole la parce que da ngay dépister nit des fois bugg mu def mammographie mbaa mu def échographie tamit du ko mën a def ndax amul moyen ñuy ñaax askan wi tamit di ñaax bon volonté yi tamit bon yi ñu doon mayee noonu tamit ñëw may si ko ñëw di doole yi. pour le moment fi mu toll nii def nañ ko poste de santé daral tey jii nii léegi bu bu àjjuma jotee dañuy dem Diohine parce que tamit duñ yem commune Fatick rek parce que district bi ñeenti commune la mooy Fatick mooy Diouroup mooy Tataguine ak mooy Diarère. Le vendredi jaareel la dem samedi vendredi ki la dem lañuy dem autant pour moi samedi bi ñu dem tamit euh, dépistage bi tamit en dehors ak tamit ak euh, CDS parce que tamit dépistage planification familiale madame Ba Hadi femme ci district sanitaire journée c'est intéressant tout comme journée yi ñuy def ci mois bi yëpp euh, dañu nek li def euh, dépistage cancer col de l'utérus ak euh, dépistage cancer du sein di gis ne journée bi journée bu am importance la pour jigéen ñi puisque ci mois octobre lañ nek ñep xam nañ ne mom moy mois wu cancer donc dañuy profito defal femme yëpp des consultations gratuites euh, concernant dépistage cancer du col ak dépistage cancer du sein waaw ñoo ngi ñëw ñu ngi répondre massivement di leen wax rek di leen si ñaaxaale rek pour ñu gën a génn ñi nga xam ne génnaguñu ñu ñëw def si ko parce que dépistage bi ñuy def amal na leen jëriñ amal nañ jëriñ ñun jigéen ñëpp euh, ñoo ñu bëri ñëw nañ nag ñoo ngi ñëw de ndànk par ndànk mais gis nañ ne affluence bi mi ngi gën a bëri. instant bi mënuñu déceler cas bu grave bu ñu wax ne dañ leen di defal dépistage donc boo déggee ñu di dépistage bi du pour wax ne femme bi am na cancer dëggantaan mais pour xool ndax doomu jàngoro bi nekkul ak moom. am na yu ñu ciy gis nag yoo xam ne ñu ngi commencé nekk ci ay phase avancée mais du ñu ne c'est si grave que ça. donc bu ñu leen defalee dépistage bu positifee rek dañ leen di orienté ci unité yi nga xam ne mën nañ fa dem pour ñu faj leen. dépistage yi ñu ngi si ànd ak euh, waa Maristop ànd si ak euh, collaboration poste de santé bi ak bu ak dev di remercier waa ak dev bu baax parce que depuis ñu nekk di def seeni activité à Fatick wuñu dara donc ñoom ñu ngi évoluer ci jeunes yi ado jeunes yi mais taxul ñu bàyyi dara dépistage bi ça concerne peut-être ñi am trente ans jëm kaw. mais terewul ñom ñew nañ parce que xale yi ñuy yor tay di leen coaché ñom ñoy doon ay magi ëllëg donc ñu coaché walé leen pour au cas où mu nekk préparation ci ñom bu ñu amee 30 ans dem defi dépistage bi du doon lu difficile ci ñom di leen wax ni rek journée yi commencé nañ ko fi ci Fatick depuis presque barki demb ñu ngi won ci poste de santé bu Ndiosmone def nañ bu jurup demb tay ñoo ngi fi Peulh Gadarène di leen wax ni. Euh, journée dañuy continuer samedi war nañ dem jaarer donc war nañ def yenen poste ñoo ngi war a clôturer tamit cité émetteur donc pour ñi nga xam ne rek pëlga konte yépp ci fatigue la bu pëlga bi rëcc na leen mën nañ ñëw émetteur le 29 incha foofu la ñuy defee clôture bi amul fay amul dara da ngay ñëw ñu defal la dépistage gratuitement bu amee suivi dinañ la orienter te am na tamit euh, lu jëm ci cancer du sein mammographie ak colposcopie bi instant bi c'est gratuit Euh, à l'hôpital régional donc euh, mën nañ ñëw amul benn problème amul amul amul fay amul frais amul dara nañ ñëw ñu defal leen dépistage bi ndax te njëriñ la pour tout la population. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku nekk si turam ak santam man la ma may mën a Diouf sage-femme d'État ci ONG ACDEV. waa tey jii dañu ñëwoon fii si poste de santé Daral Pël ga bu xam euh, fekk si benn journée de sensibilisation dépistage. autant pour moi dépistage gratuit ak tamit euh, journée planification familiale ñu ñëwoon nak en appui euh, fekk ci fi tamit waa Maristop euh, en appui ñoo fekké ci journée bi da def ci suñu participation. gis nañ né population bi wuy ci nañ waaw yi ñëw nañ consulter wu parce que octobre mois d'octobre dafa nek mois bo xamantene mois mois jigen ñi la. képp koo xamante ne yaa ngi ñuy dégg danga nga war a ñëw def si dépistage bi parce que feebar cancer dafa nekk loo xamante ne nit mënu ko xoolal boppam il faut nga dem si personnel de santé mu xoolal la ndax danga am feebar bi te su fekkente ne da ngaa nekk si début bi suñ la jëlee en charge yow. mën nga teel a wër suñ teelee dépister feebar bi rek yow dinañ la teel a jël en charge su fekkee tamit dafa dépassé suñuy kii dinañ la référé si d' autres services nga mën a faju foofu sans problème dépistage bi ñu ngi leen di wax ne tamit c' est gratuit mammographie bi tamit réduire nañ prix bi ak colposcopie bi yëpp wàññi nañ prix yi colposcopie à 10 000 mammographie c' à 15 000 francs. éducation sur Sine TV santé sur Sine TV l'actualité sur Sine TV. politique sur Cine TV, sport sur Cine TV, religion sur Cine TV, culture sur Cine TV, c'est un écrit par Cine TV.